Assalamualaikum warahmatullah. Mangi maa nuyu sama wayjur di sunu sering. Sering Baba Karsi. papa ñu ngi lay nuyu bu baax papa ñu ngi lay ziyaara ak yow. di am mbégte dajeeg yow. ndax kañu lay xoole ndax kañu lay xoole mooy yokk jamono bu ne mbégte moomu. ci yow. di sama maam. di sunu wayjur. di sunu sëriñ. di sunu sëriñ. Maulana Cheikh Al Hadj Abdou Aziz dajoon Sénégal. dafa dajoon Sénégal. dajoon yàlla yëpp. mbaax ga dajoon na jaamu yàlla yëpp. bu maam Abdou nekkoon école bu mag. fore naa ci ay waxtaanam. fore naa boo xam ne jamono bu ne dama koy fàttaliku. dama koy fàttaliku. dégg ci maam Abdou mu ne. mag ñi dem nañ ci àll bi. mag rëbb nañu. rey nañu ab gàtt indi nañ ci kër gi dem nañ tool bay nañu góob nañu indi nañu ci kër gi bojj nañu soq nañu mooñ nañu ñoom mag ñi tay nañu tere ji cere ji pare na ñu jël gàtt bi togg ba ñeex mi pare ñu jël euh, lekk gi. jël lekket gi. lekk googu pare lekk googu ñu indi ko teg ci ker gi. ci baate. ci ne xale yi. daal ak waa kër gi. ñam waa ngi nii ñam waa ngi lekk dong moo des. loolu mag ñi defal nañu ko. mag ñi defal nañu ko ñun waa Sénégal. kon li des mooy. jotay bu rafet ba lekk gi rafet ndax ñam wi mom ñepp tek nañ ci seen bët moy ressource yi mooy li rew mi am mu ne loolu yëpp mag ñi defal nañ ko ndaw ñi kon ñun bu ñu yàlla defee ñu né ay ndaw ah, dañoo war a jàngat ci jangale mag ñi jëm ko léralé suñu yoon ñun nak sëriñ sa njaboot lañu sa ay talibé lañu yalla denk ñu ville de Thiès man mi ma jité ko ak parti bu ñuy wax FDS les Guelwaar ma jité ko ma jiite ko ma nekk ci tournée nationale di wër réew mi ngir waxtaan ak wa réew mi dem na kaolak dem na Jurbel dem na Ndar dem na luga dem na ba futa ma wara def nak ñent fan di wër département ngir waxtaan ak sama ay bok ci yene ji ma am ci rew mi li ñi dox nak mënuñu ko dox mënuñu ko dox te wuñu fi te wuñu fi ci yow sakku ñaan ndax yéene bi ñu am ci Sénégal. sa ñaan gunge bañ man koo matale. bañ man bu kawe nag lañu am ci réew mi. bëgg nañu tabaxaat politique bu bees ci Sénégal. waaye nag ci jàmm. ci dal ci njub ci njub. ak maandute dañuy wax léegi dañuy wax léegi ne. damay wax wax ne benn ci référence yi ma jël. teg ko ci sama kanam. teg ko ci sama kanam. naxuma sama bopp de. sama bopp xam naa ne mënumaa yegg foofa mukk ci ak njub. waaye Omar ibn Abdul Aziz. modèle de bonne gouvernance. la bon boo xam ne bonne gouvernance boo koy jàngale. ci nan lañuy ñuy gérer ci ak njub. ci ak maandute. ci ak maandute. ci nu diine gërëm. ci nu diine gërëm. Omar ibn Abdul Aziz. la ci. ñuy wax ni. ñuy wax ni. benn bés. Fatima di soxnaam. fekk na ko ci néeg bi muy jaamoo yàlla. ko ci néeg bi muy jaamoo yàlla. muy jooy yu métti. muy jooy moom Omar ibn Abdul jooy yu métti. mu ko waaye yow buuru jullit yi looy jooy. mu ne ko pouvoir politique bii ñu ma dénk. te suñu borom war ko atte ci man ëllëg. atte sama diggante ak jigéen sama diggante jigéen ñi. sama diggante ak yi. sama diggante ak fuqaraa sama diggante ak miskin yi. sama diggante ak miskin yi. sama diggante ak euh, baayo yi. sama diggante ak baayo yi. ak néew ji doole yëpp. ak néew ji doole doxandéem yi. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a ëllëg yawmal qiyaamati mu war a nekk avocat wu néew di doole yëpp. mu ne diisaay boobu. mu loolu lay xalaat loolu lay bay jooy. kon. suñu yéene ci politique suñu yéene ci politique. mooy ñu tabaxaat maandute ci dëkk bi. mooy ci dëkk bi. dimbali néew di doole projet bu toll noonu nag suñu ko amee. dañuy ñëw ci yow. dañuy ñëw ci ah, ah sàkku si ñaan nag. nga dimbalee ñu sa ñaan. nga dimbalee ñu sa ñaan. nga jàppalee ñu sa ñaan. ba suñu yéene ji ñu am. ba suñu ñu defal ñu ci barke. ba li ñuy wax. mën a tàbbi ci xolu nit ñi ba nit ñi man ñoo jox li ñu soxla ci ñoom ba bu ëllëgee ñu nit ñu mën a mottali suñu yéene ci ñoom kon daal si sa doom sa taalibe sa njaboot moo la seet si sàkku si ñaan wasalaamualeykum wa rahmatullah marabu ne tabaarakallahu marabu ne tabarakallahu gan gi ñew doon wax moy borom kër gi fa tabarakallahu mu marabu ne mu ngi lay wax dalal ak jamm ñun fi ñu tok dañ fe tok rek di len gardel ku deg ni nga waxe rek xam yow doomu kër gi nga lolu yalla nañ ci yalla saxal ñun ñep lu baax it. lu baax it. kenn du ko bàyyee kenn. koo bàyyee kenn. gannaaw bi ñu la dalalee ba pare. gannaaw bi ñu la dalalee ba pare. ñëw nga ci say ñëw nga ci say bokk. ñëw nga ci lépp daal. ñëw nga daal ci sa lépp. yéene bii nga am nag yàlla na la ko yàlla mottalil. bii nga am nag yàlla na la ko yàlla mottalil. te yaa ngi ci ci yoon wi de. yalla waxul kenn toogal ma fekk la. newul kenn togal ma fekk ci la. ni fastabiqu alxayraat. yàlla dana ci lepp lu baax. lu baax kenn kenn. lu baax kenn waru ko ba kenn. dañuy essayer roje bu ko defé nak sa bu ko yalla tas. sa bu ko na la ci yalla jappalé lu baax moom. kenn ko bàyyee kenn. kenn koo baa kenn. wut ko ci sa pexe rek. wut ko rek ci sa pexe. ndax yiw dañ koy njëkkante. ndax yiw dañ koy njëkkante. boo ko bàyyee koo xam boo ko bàyyee koo xam ne. du wërsëgam. du wër mu mu ñàkk. nga ñàkk yow. njëkkante koog ñëpp. njëkkante ñëpp. am nak yéene bi nga am sa yéene bi nga am. te moy rew mi yeb defaru. ci bir ak ci biti nak koku moy ci xol yi. kooku mooy ci xol yi. ak ci biti ak ci cër ci biti. yalla na la ci yalla dimbalé kuy ñaan jëm ci yalla bo ñaané ba par rek neel amna waye boy ñaan nit na yow. neel amaana. neel ah li ñaan de man na ma jot man na amit. man na amit. yàlla nañ ci yàlla musal nag waaye yàlla na la ci yàlla jotale ci barke rasulillahi incha allah duñ leen fàtte mukk dinañ ci def suñu ñaan def ci suñu kattan ak lu ñu man yàlla mi yor mbir yi yàlla na la ko yàlla sottalal ci barke rasulillahi yàlla bu yàlla tas yaakaar sabab sëriñ Babacar wax ni nee na sa turandoo turandoom sëriñ Babacar moo wax ne sabab lu leen sabab lu leen te bu leen sukkandikoo yëngu yi mu tarku tasabbu bi mu di sabab lu pour am lu baax min suu ima adab ma adabit nee na mu ngi bokk ci ñàkk teggin yàlla ñàkk sabablu ñàkk sabablu comme jóg nga nag bul am mukk ñaari xel ndax man dinaa jot ci réew meem duma ci jot loolu ba koog doomu aadama yi ci tax nga jóg neel man danaa am moo tax yàlla danaa am wala duma am dee ko seq ak nit ni yow waaye sa digganteeg waaye bu dee sa digganteeg sa borom. neel am naa. jàppal ne am na wa man daa bi di alal. maam Alaaji Maal nee na képp ku ñaan yàlla alal yaqiini nga ànd ak wóolu bu mat sëkk. la ngay ñaan da koy am jëlee ko ci yàlla. yàlla na la ko yàlla defal noonu. ci barke rasulillah li ngay dox yàlla ko yàlla sottal. waxtu wi moo xat ñuy waaj a julli. waaye lu baax daal. mara bu ne duñ ko baax ku sant si. wala keneen ku sant neneen. yàlla moo wax ne. fastabiqu alxayraati rawante leen ci lépp lu yiw ngeen jëkkante ko. ku ci jot rek ku ci xam na yow a yal na la ci yàlla jotale ci barke rasulillah xam naa waxtu julli yi moo jot waaye dinañ ci waxtaan ak Serigne Babacar si mii xalifa bi dina ko wax na ñëwoon nga fi waaye moom yëgal ne surga bu fi toogal ñëpp rek mu ak Cheikh Alhaji Malick ñoom it ñaan incha dina dina fexe ba ñu defal la ñu nit danañ sabablu ñaan yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar insha allahu tegul ci yoon wi rek tegul yow ci yoon wi bul geesu nag bul geesu de jappal ne da dégg lu ne waye sa maam Mansour di wayjuru khalifa bi fi ne mo waxoon ak mam Abdou bim koy jox khilafa gi nan ko abdou Aziz laa taltafit bul gestu de mu ne ko si duma gesu mu ko innal karima na ko pire da fay fir ci la muné yalla na la ci yalla jappale yalla na la ci yalla jappale yéen ñi and ak ak momit bu mu nek mu ko andu biti bu leen ko àndu biti. ànd leen ko àndu biir. ànd leen ko àndu biir. jàppale ko jàppale ko. sottee. ba bu lépp dem mën a dem ci kanam. ko yàlla def. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. yàlla na ko yàlla def. xam naa waxtu wee jot. waaye ko konoon dinañ gën a guddal kàddu yeeg ñaan fa tabaarakallaahu. yiw moom. yàlla da koo ubbil ñëpp. yàlla da koo ubbil ñëpp. nekku ku njëkk rek jëlal. fa tabaarakallaahu yal na na yàlla sottal baate mara bu ne ñu tàllal def ñaan jàng fatiha salaat teg fatihi teg ci ayatal kursi yi teg ci suratal ixlaas ak suratu naasi ñu tëjewaat ko salaatal fatihi ñu jàng jàng gi nag ñu yéene ci jaamoo ko yàlla yàlla na ko yàlla nangu def ko hadiye ci yonent bi yool bi nag ñu yéene ko ko moom Babacar Diop ba lii muy yóotu yàlla na ko yàlla teg ci loxoom ci barke rasulillah bismillah tàllal leen